ñu gis Sénégal gépp waaye mbokki woo say say doom say xarit pour ñu lan nga ñu mën a wax xanaa sant yàlla di rafetlu seen teewaay leen ciy gërëm leen di sant ndaxte am na un jour euh, ba ñuy installé ne naa ne yéene suñu premier partenaire te loolu dañ kaa gëm moo tax effectivement am na ñu bëri jox naa leen fi ay ay audio pour ko ñu wasaare ko wala boog ñu tasaare ko. ah wala boog ñu léwatoo ci ah <laughs> donc je crois que loolu déjà dara la euh, ngeen xam rek ne ñun ñoo bokk Sénégal euh, làmb ji suñu yëfu ñoo ko moom man jàpp naa ne làmb mooy discipline yi gën a mobiliser ci Sénégal c'est vrai idée bi fu mu jógee déjà mooy que ne état bi dafa ci lu mu nekk xeex mbas mi joxe également ay conseils ak ay conseil mais bu nu sañoon nit ñi dem ñàkku ji. ñun nag béy say sa way tànk ñu gëm ne xëy na bu ñu ooyee ak làmb population pour ñu ñàkku loolu bu benn te ak ñëwoon sax wala 1000 ñëw wala 2000 ñun vraiment wàccoon nañu ak lañu ñu war def ndaxte war nañu accompagner ministère de la santé ci nit ñi ñàkku war également ñun accompagner suñu bopp pour que suñu làmb ubbi comme dañ ne mbas mi moo tax ñu tëj làmb ji wala ñu arteegum làmb ji ñun war nañ def lu tax ñu ubbiwaat làmb ji. moo doon joxe exemple bii gëm naa ne suñuy naataango yi bu ñu ko defee du yàggati dara mbas mi dañuy suri ndax dina wàññeeku comme nee nañ ñàkk bi mooy moo ñuy aar mooy ñu ci dimbale bi ñu am cas grave parce que cas grave mooy indi décès yi ñu ngi jaale ñi nga xam ne vraiment mbas mi yóbbu ak ñeneen ñi sax wax dëgg yàlla di ñaan suñu borom vraiment mbas mi gaaw fee jógee ah ku nekk dellu ci sagom est-ce que li a non xam nga. Euh, lii ñëw yàlla rek xam jaam bi xamu ko ñu xamoon ni lay demee kon ca depart ba daañu ko def mais gëmuñu woon ne mbas mi na xeexeer bi yéeg ba tax ba ñu arrêté activité yi donc loolu wax dëgg yàlla am na ensuite ñu xam ne nekkul ne dañoo tere sport yi déedéet terewuñ ko mais dañu ne bu yóbboo ñu moytu ko nañ moytu yenn yi luy dajale nit ak yooyu te respecté les mesures barrières ca biir loolu nag vraiment de concert ñu ne nañ ajandi lamb ji ndaxte fa mu tolloon bañ koy defi tamit muy yéeg rek di yéeg sa xel dalatu ndaxte boo organisé tamit ñu ne am na ko gaañu fële waa koñ boobu duñ ñëw ñu ne mbër ma de am na waaye mbokkam bu bu wàññeeku mbër ma day ne dañoo ñaan report yooyu maanaam dafay indi yeneen gàllankoor bala tax ñun nañ arrêté ne teg xoolaat suñu bopp jéem a dem ci li nga xam ne moom lañ digle mu wàññeeku ñu dem reprendre suñu activité monsieur le gouverneur léegi la fi jógee am na lu mu wax oui. mbër yi mag yi nga xamante ne ñu ngi leen doon séntu ci làmb ay ténor lañ ñëwuñu est-ce que CNG bi woo na mbër yi téléphone ne leen tey dañoo war a ñëw donte vacciné wuñ nañ ba pare sax ñu ñëw sensibiliser ñi nga xamante ni vacciné wu waaw euh, am na mbër yu ñu woo am na ñoo xam ne tamit woo nañ seen kilifa ñu woo leen amul benn mbër mu nekk fii VIP te yëgul lii ñii posté nañ ay audio ñii aussi. téléphoné nañu wax ne mënuma ñëw fii laa ne wala danaa ñëw lii départ la départ la yemul fii tey bu subaa it ku ñëw ñakku bu ngoonee ku ñëw ñakku am na mbër yoo xam ne xëy na calcul nañ ne man su ma demee naa fekk suma adversaire bi damay baay ba mu dem man ma ñëw ay calcul la parce que gis nañ audio yi la ndax ne ñii aussi ñàkkul nañ ba pare mais am na ñu ñàkkee pare mais wane ne man aussi dinaa ñëw donc journée bi jeexagul ñu ngi fi ñu ngi xaarale en attendant parce que ñeneen parce que ku ñëw da ngay ñàkku rek dem ku ñàkku dem loolu euh, ça qui est normal day wane ne ñun aussi ñu ngi est en phase avec l'autorité maanaam ñu éviter rassemblement yi boo ñëwee ñokku dem sama morom ñàkku dem lii dafay nekk loo xam ne dalal xeli état te ñun nag nekkuñ fi pour indi lu xejamal dara mais dañu nekk pour dalal xeli état won ko ne ñun ay citoyen lañu ak lu làmb c'est des nobles ak lu làmb pare na nañu pour accompagner état pour que évidemment ñu mën a dérouler seen sport président fu mu ne nii ñu mën a jàpp après journée tey bi ndax dinañ amalaat beneen waxtaan nga xam ne mooy gouverneur bi ñu mën a ubbiwaat làmb ji wala dañuy xaarandi. Eh, mais gouverneur wax na li muy wax fii léegi nee na waaye bu ñu évaluer lii rek ñu delluwaat ci suñu compétition loolu moom amul problème maintenant mais nañ nañ dëggal suñu bopp bu dëggalee suñu bopp amul benn problème fi mu ne nii la barre est dans notre combat ki xam Balla Gaye ak nga xam ne moom mooy mhm. si ta Papa mhm. dem ba dernier moment ñu ne lamb ji mhm. est-ce que euh, euh, nan nan ngeen waroon a mën a def pour sauver ñaari journée yooyu ñu jàll non xam nga ñaari journée yooyu boo ko sowee sowee leneen boo ko sowee rek yëgale saison bi te ñaari journée yooyu bu ngeen toogee seen kër dal ngeen analyser ku mel ni Balla Gaye ku mel ni Bombardier ku mel ni Siteu ku mel ni Papa Sow ñooñu d'abord bu ñuy jóg rek c'est tout un quartier c'est tu un quartier ñaa ngi dégg tànkarloo baag lañ doon ba ñëpp dañ ko ciy am donc la ce n'était même pas permis waaw donc là c'était pas permis que ñu organiser ci loolu li ñu war a def mooy ñu arrêté gis ngeen open press yi eh, booy kii le champion la cité vous avez vu ces images ah loolu dal xel da ngeen ne lii li ñu tere yëpp nag mu ngi nii ndaxte c'est un phénomène yàllaa ko may loolu. mais est-ce que euh, jaaree woo leen ci Siteu rek tëjaale. non jaar noo Siteu taxul dama ne gis ngeen Siteu n'est-ce pas open press ba c'est pour dire que jour làmb ji xëy na lu ëpp loolu muy ñëw te loolu bu ñëwee fan fan foo koy dugal même bu ñu nee 5000 moom rek mun na jënd 5000 yi ñeneen ñi fu ñu jëm donc ça rek nañ am problème fii sax ndaxte fii fukk duñ dugg junne na ci biti nga ne du ngeen dugg boo ko def nga beneen problème boo xam ne mooy ëpp fuuf. li nga xam nga def vraiment ñu sant champion yooyu yëpp Siteu ñu ngi koy nuyu suñu jarbaar la di koy gërëm di ko sant vraiment ñoom Bombardier ñoom Balla Gaye ñoom Papa Sow mbëri champion yi Modou Lo tout le monde vraiment euh, ñoom Ama Baldé tous les champions yi fi nekk ñu ngi nuyu Gris Bordeaux ñu ngi koy nuy di ko sant ñooñu vraiment c'est des porteurs de voix yoo xam ne kenn du wax na leneen booy ñaa ñu ngi koy gërëm di ko sant posté na benn ojo on na ñëpp n'est-ce pas à la vaccination te loolu ñu xaar jom baay booy bi moo doon oo léegi nii moom aussi parce que nag audio nee na mu ngi ci li ñu nekk am na mbër yu bëri ñu ngi seen kër téléphone lépp lu ngeen ne ñoo ngi ci ñàkku nañ ba pare mais nañu ci accompagner ñenn ñi naan man sax naa def audio ñii naan après ma naa ñu wu. parce que fi ñu jëm yéen ñii nii bu ngeen vacciné wu sax du ngeen dugg fii sara la parce que il faut ngeen wane seen carte bu dugg c'est ça la vérité aussi mbëri xam nañ ne ils sont conscients que aussi wul duñ ci dem. amateurs yi am nañu ko xam nañu ko xamagul mais nañ leen ko xamal te gëm naa ne tey boo xam ne suba Siteu ak Papa Sow dañuy bëre ñu ne ko amul ku vacciné wu doo duggu fi kenn fi xej te fa lañ jëm donc c'est un processus on vient de démarrer et on va suivre et suivez avec nous et également aidez-nous à avec les populations aussi.